bisimila dalee nag jàmm ci chaîne bi ngeen tàmmu seen bopp yéenekaay yu bare ngi xëy yéegee ñu tontu gi opposition bi tontu président Bassirou Diomaye Faye gannaaw kàddu yëm yëkkati Walf Quotidien ne ñépp a ko songandoo kay tiir groupé la yéenekaay bi wax ci kaw Diomaye Seydou Gueye door ya fi ca Walf Quotidien ne Diomaye a été maanaam la mu def àndul ak taar Thierno Bocoum ca boobale yéenekaay ne Diomaye président par intérim la kiy def nii l'observateur yi daa mel ni noonu la gisee yéenekaay bi xëy ci taxawaay bi Thierno Bocoum ak Bougane am ci opposition bi ne li ko waral mooy kilifa yu bari ca boobaleb opposition dañoo daw xeexub génération it la ñuy def ndax ñoo ak ñii fi ne yéenekaay bi ne ñoo bokk génération maanaam seeni maas lañu bataille de positionnement bi it l'observateur gis na ko joxoñ it la ñu mën a am ni limite maanaam fa nu mën a yem journal booba it yeggee ñu tontu yi APR yëkkati démb jëme ci mi Info ni tontu nan ko ba mu saf sàpp ci li mu wax ci Macky Sall ne kees ba da koo këpp yóbbu xayma nañu itam téeméeri fan yi mu def ci bopp réew mi neenu loolu mu wax ca fond politique ya mu ne Macky da koo yóbbu la muy tekki mooy ne Bassirou Diomaye Faye xamul ni yëf yi wala waxtaanul ak ay service am bés bi le jour téeméeri fan yi bañ ko nattee gisuñu ca lenn luy jariñ Sénégal la ñu gis kay mooy làmbatu tâtonnement gu metti la Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko nekkee ci bopp réew mi waral bés bi le jour ne xajamal nañu cerey Bassirou Diomaye Faye ñoom waa APR ca le témoin it loola lañu def xayma téeméeri fan yi jomaay fay yi ne téeméeri fan yi bavardage la maanaam waxi kese ak weddi sa bopp di wax waxeet le témoin ne waaye Ousseynou li porte parole présidence tontu na leen tontu luñ dul fàtteeti ca booba lépp yéenekaay moom citizen li mu ne ngor ak jom moo waroon a aaye waa APR ñu jëlati kàddu ci mim réew waxtu woowa ca yor yor bi Amadou Ba bu Pastef ak docteur Khadim Bamba Diagne ña wax ca la ñu xaar te projet ba yéenekaay bi ne ci journée du nga yëg ne indi nga coppite ci réew mi mbaa bokk nga ci ñi indi coppite ci réew mi njiitu réew mi nag keroog ba muy dajeek taskatu xibaar yi laas ne am na ponk yu bari yoo xam ne dañu ca bi na ci dil def na kook Macky Sall moom Diomaye ak Sonko waaye itam lu jëm ci wàllu amnistie bi franc CFA appel à candidature ngir yenn poste yi yooye yëpp journal ba ne tekk lañu ca def booba jamono ca Les Échos di wékki ponk par ponk li président Bassirou Diomaye Faye wax keroog ba mu janoog taskatu xibaar yi Sud Quotidien tuddee ko contre attaque APR APR le quotidien yi yeggee ñu yooye cong yu bàyyeekoo ci APR jaar ci kàddu Seydou Gueye Thierno Bocoum ca boobaleb journal naan jomaay moom démissionné la war a def ndax gëmul ne sax moom war naa mën a doon njiitu réewum Sénégal Abdoulaye Bathily mi président Bassirou Diomaye Faye tànn def ko envoyé spécial le quotidien ko gisee nouvel essai diplomatique waxtu woowa le soleil gis ne état bës na accélérateur bi maanaam baral nay jéego ngir auto électrique yi a dugg ci Sénégal yéene kaay bi ne démb ministre des oto yi dawee courant mën a dugg ci réew mi la mën a yombal dugg googa it Le Soleil ne càmbar nañu ko bokk na ci ñu def exonération ngir wàññi njëg li waaye itam yombal pièce de rechange ak lu jëm ci wàllu maintenance Le Regard loola waral mu ne réformateur baa ngay liggéey muy El Malick Ndiaye journal ba ne voiture électrique yi maanaam oto yi dawee courant ma ngi cay liggéey liggéey bu am solo di xool naka la ñuy def ba mën ko dugal ci réew mi Le Regard bu gisee El Malick Ndiaye ni réformateur la dabbu buur moo it ki mën a faagaagal nataal googa la dépêche xuus na ca dëkk ci jaar-jaaru Ousmane Sonko ko jiitu a ngi ni muy xeex ngir teg ci fëtë bi ne loola nag la muy tekki mooy Diomaye liyey beneen projet bi kon bu noppee ci réew mi ca loola la jublu Cerno Bokum ca laas loolu tax mu ne premier ministre Ousmane Sonko ak njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ci dil gu rëy rëy la ñu ne moom Sonko jàppanteem ak assemblée nationale yéene kaay booba ne tey la ñuy xam ndax day fajum déet journal bi di ñu yëgal ne ndaje mi ñéppi xaar tey jii am mu nar a doon ndaje mu dut yomb l'observateur mel ni ku naan ñu ki ay mbiram yombut kay mooy Bah ba ne tëj nañu ko kaso waaye démb génnewaat nañu ko dégluwaat ko ndax beneen plainte bu dal ci kawam bañ ko dégloo ca sûreté urbaine ba noppi l'observateur ne placé ti nañ ko en garde à vue ngir saaga ak i menace waaye tuuma yooye ba ko ca enquêteur laaj laaj l'observateur ne baajaxate tekk la def nangu wuta yey nangu wuta yàbbi maanaam faalewu leen les échos indi leeral ci plainte bu bees booba dal ci kaw baajaxate mi ñu génnee waat kaso démb dégluwaat ko yéene cabinet maître Ousseynou Fall moo ko plainte waaye la tax tontuwul mooy dafa jàpp ne loi d'amnistie bi fomp na loola ñu koy toppee Doudou Wade moom ba tey ma ngay topp dossier bi ñeel ger gi ñu ne woon ger nañu ko ñaari juge constitutionnel bés bi la journée sulliwaat na boobaleb dossier moom Doudou Wade la tribune ko ne mbiram magistrat yenu ger Doudou Wade tegaat na ko ci ji bëgg ñu indi ciy leeral yëpp xam li xew bëgg xam li xew ci domaine public maritime bee waraloon premier ministre samp commission ad hoc ngir ñu saytu suuf ya ne naka lañu ko joxee l'indépendant ne commission booba liggéey na ba noppi premier ministre Ousmane Sonko jamono jañuy wax wàllu suuf vox populi yëgal ñu ne cité Mariam Faye Sall bi soxal 100000 logements yi ay njaboot yu baree dem songu ko séddoo téeméeri kër ak juróom benn fukk ya fa ne yéene cabinet mbir mu doy waar moo xew ca Bambilor la ko sabab di ab xibaar bu ñenn ñu jot ne président Bassirou Diomaye Faye moo wax ni bépp njaboot bu amul kër sañ ngaa dem jël ca loolee soxal projet cent mille logement bi soxna su tudd Mami Njaay ne moom dëkkandoo ma ko wax ndax moom dem na ba toog ca kër yooyu ak njabootam te ñoom it noona lanu fas yéene def yéene cabinet gendarmerie ca mujjee dugg bañ a newoon ca yooyale kër ñu génnee leen journal ba ne maire ba Njañ moo mujjee jël kàddu di dalal nit ña naan leen xibaar booba ñu leen jox du dëgg ndax yooyale kër kenn du ca jotee noona l'observateur it yeggee ñu mooma bi mu doy mu jural ba doon defar kër yooye bokk ci cent mille logement yi yéene kaay bi di joxoñ ñu ne woon ci bopp bitim réew laas ne def na fa ñetti at keroog ba muy ñibbi Jurbel fekk nañu dëjël ko ba noppi yéenekaay bi ne te bés ba mu yeggee bés booba la ñu doon takkaat soxnaam ndax jàppoon ni moom faatu na foofa la ñuy taxaw ñun ñaanal leen kenn la jàmm dig dajee alxamis incha allah ñu ngi leen di ñaanal tam jàmm